Pape Amadou Sall euh, secrétaire euh, administratif de l'union régionale euh, du parti socialiste de Thiès membre du comité central. je pense que par rapport à li nga xam ni moom la suñu camarade boobu wax maître Moussa Bocar Thiam d'abord dafa war a di fàttaliku moom ni moom porte-parole PS la buy wax dañu war a xam ci ban casquette lay wax. donc moom lay xalaatam intéressé wu ñu parce que fañ ko war a joxee bokk na fa na xaar ba ñu yegg mu joxe ko fa buy wax ci biti di wax ak joxañ opinion bi bu ko nit ñi tiimale micro di ko interroger c'est parce que dañu jàpp ne mooy porte-parole PS donc la mu war a wax dafa war a porter le position du parti mais warul wax moom li mu xalaat boppam parce que dafay def amalgame jiixi jaaxa ci bopp nit ñi loolu kenn mënu ko rafetlu bi ci des man li ma ci yéem moo di ni ki ñuy combattre c'est un et un des plus éminents camarades du PS bi muy servir ce PS là où fan la ñu nekkoon ñoom ñoo ñu di wax tey aujourd'hui que ce soit moom bu Moussa Bocar Thiam que ce soit Mamadou Wane parcelle Parcelles Assainies ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni xam nga li yàq PS fi ne nii dafa am ñoo xamante ni dañu nekk ci wetu Ousmane Tanor jàpp te Tanor soxlawul ku koy ragal gannaawam soxlawul ku koy fireel ay dàllam c'est des camarades et collaborateurs loyaux engagés et fidèles loolu la soxla mais jàpp nañu ni. ci noonu lañ ko mën a servir te dañ koy desservir parce que c'est des gens yoo xamante ni dañu bëgg a confondre maanaam seen tàpp seen avenir mu ànd ak Ousmane Tanor Dieng maanaam bu dundee ñu dund bu bu bu dee mu dee te Tanor do euh, du maanaam euh, il n'est pas éternel certes waaye il aura une sortie honorable parce que ji na ko PS il a rendu un grand service un éminent service au Parti socialiste maintenant ni mu amee noonu ñu pare fe ñu nekk ci wetam defe ni noonu rek lañ mën a exister noonu la amee aussi ci beneen boor bi côté Khalifa Sall ñoo xamante ni maanaam mën naa leen tuddee pyromane jàpp nañ ni lu ne ci seen kanam dañ ko war a taal tuxal ko tout de suite et maintenant pour remplacer li fi nekk mais loolu aussi jàpp nañ ni jaaduwul maître Moussa ci am li nga xamante ni yëkkati na wax ko kooku xalaatam la moom ni mu amee xalaat noonu ngay déggee ba tàyyi ci rajo bi ku nekk bunkiliñ wala ku nekk. Sédhiou wala ku nekk Kaffrine wala feneen ba ci Thiès gi ne Khalifa Ababacar Sall mooy nekk suñu candidat ñoom ñoo ne yeggaguñ ci donc waroon ñàkk bala nga koy tëb da nga ciy yegg comme yeggaguñ ci nañu ci législative yi la ñu laaj tontu nañ ci ci euh, ay PV nañu bàyyi ba ñu yegg interroger question candidature PS am nañ ay procédure interne buñ ca yeggee moom Moussa Bocar am lii mu wax mu defendre ko dana gis ñu défendre le contraire mais yeggaguñ ci en tant que porte-parole warul tamit amalgame ci bopp nit ñi di créé jiixa jaaxa parce que ku ko dégg xam la mu doon ci PS danaan PS nee na te PS waxu ko donc ça également rafetlu wuñ ko amul benn camarade bu koy rafetlu. ni nga wax waaw xam nga euh, des fois sax fii ma bokk Thiès am na ci ñoo xamante ni ñi nga xam ni comme man jàpp nañ dama ñi ma ciy déranger li ñaan naan qui veut tuer son chien am na ci ñoo xamante ni boo yëkkatee jëm rek dañu naan ci kaawu xalifa la bokk. dama ne la bu yàggul matul ñaari semaine talaata dama dem togg ak Ousmane Tanor Dieng ba ñu waxtaanee ba yegg ci lu mel noonu am na xaritam bu ko fekk ba mu waxee ne ay Pape Amadou ne nee nañu xalifa euh, Boye la ci waa kër xalifa Sall yi Tanor avant may wax lii ma lay wax ci kii laa koy waxee xëñ na taloon dana ko seetaan moo wax ci gémmiñam maa ngi toog ne ah non non non ça ça ne ressemble pas à Pape Amadou Sall ça ne pas du moom parce que tout simplement c'est pas parce que dama contre xalifa contre ma xalifa ànduma ak Tanor man PS la àndal dañu ma formé pour ma nekk socialiste man noonu lañ ma tàggatee jaayu ñu ma mouvement de soutien Ousmane Tanor Dieng jaayu ñu ma mouvement de soutien Khalifa Ababacar Sall et puis waaye lu tax man ma war a mën a déterminé wu ne ci gannaaw xalifa laa ne te dégguma Khalifa samp ndënd dégguma mu samp courant dégguma mu samp euh, mouvement ña koy def xëñ na bokkuñu ci PS xañ nañ ni ah PS kat ña fa ne xëñ na PS intéressé wuñu waaye Khalifa intéressé nañ donc créé nañ mouvement de soutien mais man damaa nekk ci PS 87 ak fii may wax ak yow donc weesale naa suma bopp fu may déterminé woon naan tanoriste la donte yor naa secretaire général union régionale la moom Ousmane Tanor Dieng mi yore bopp parti bi juróom-ñaari at nekk son plus proche collaborateur juróom-ñaari at mais taxul kenn mosuma dégg ma ne tanoriste la et jàpp naa ni c'est quelqu'un qui mérite tous les honneurs pour service rendu au PS ba fii may waxee ak yow tey jàpp naa ne gu ñuy xëccoo PF liggéey bu mucc ay bu mu ci def moo tax te ñépp war nañ ko devoir respect sargal ko cëral ko bu muy génnit mu nekk sortie bu honorable boo xamante ne ni l'histoire retiendra que ni après Abdou Diouf moo tenir la drague ot ba PS mën a exister bu kenn fàttali Ablaye Wade première mission moo doon démanteler le PS keneen ku fi newoon ku Ousmane Tanor Dieng tey parti bi kenn du ko wax donc am na mérite mais man ku neex nag dëkkal ma fa mu ne waaye ñi ma xam ba ci Ousmane Tanor man la int la ma mooy la mu xalaat ci man te la mu xalaat ci man wax na ma ko ma toog ma toog mu ne Pape Amadou du ne lui resemble pas ça c'est pas bu ñu demee nag ba toll ci jamono joo xam ni comme ni ñu laajee ci législative dañ ñu laaj ci jëm ci élection présidentielle dama la wax et retenez la PS bu sampee bant moo ma gënal beneen candidat bu mu mën a doon bant laa la wax waxuma la nit donc jëlal naa Khalifa dama ni bant bu ko pees sampe contrairement à Moussa Bocar Thiam et les autres mois jeune ne combat pees bu mu doon même la dernier moo ma gënal beneen candidat bu mu doon au Sénégal ça c'est très clair mais je ne personnalise la chose maanaam defuma ko muy nit ñi yëfu diw ak diw mais pourquoi ñu bëgg focaliser sax ci xalifa mais ku leen wax ni bu ñu ubbee primaire u parti socialiste mais yeneen i kàngam du ñu déposer seen candidature bu boobaa nag dinaa joxe man suma kàddu ci kan laa àndal bu Ousmane Tanor Dieng ne candidat la xalifa ne candidat la keneen ne la bu boobaa man dinaa wax sama position parce que loolu sama droit la en tant que socialiste. Euh, euh, xam nga PS du nit ay nit a koy teewal nit ñi koy teewal bu ñu matulee bukki bu yabee gaynde ci doxin walla te li yàq ànd mooy fourmi bu bëggee laaj paaru lion gaynde ànd ba di yàqu parce que gaynde ñàkkul fayda tey jii bu fekkee ni dañu li xew en réalité mooy au conseil bi ñetti poste la département bu Thiès am ba ñu ñëwee ca séddale ba ka ko waroon a fekke muy Louis Thomas Ciss muy le responsable départemental du PS yàlla dafa def ni élection bi euh, au niveau de à euh, l'échelle départementale la moo waroon a teew te def nañ tuuba yëgul réunion ba pour mën a jàllale seen trahison boobu jàll jàllale seen deal boobu te ki nga xamante ni moo ko def weesuwul ki jiite parti bi à Thiès muy Ousseynou Keita parce que moo dem représenté PS ca kii ba mais en réalité boppam la doon teewali parce que comme à son habitude lu mu gisul boppam keneen du ko jariñoo tax ko ba ci élection locale yi prolongation boobu rek moo ñëw ci au conseil parce que élection locale bi taxawaay boobu la am ba yàlla def na sàggan na ba nekkul conseil municipal nekkul conseil départemental nekk ko donc bi ñu fa jógee ñu ñëw di séddale cër yi ña fekkee réunion ba ca Thierno Alassane Sall ñoo ko wax. dañu ne ba ñu waxee kañ am na ku jël parole muy Souleymane Ndiaye Brin proposition ba mu def dafa ne ñetti parti yu mag a ne ci coalition bi na APR jël benn PS jël benn AFP jël benn te looloo jàddu mais ba mu ko waxee ñuy waxtaan di waxtaan Ousseynou Kay laay kaddu ne pour faire preuve de générosité moo ya mu utiliser pour wane yéwénu PS ak seen kii poste bi PS moom bàyyee na ko ak APR APR ñu am ñaar AFP am benn waaw ban critère la ñu mën a teg bu AFP mën a séddoo ci département Thiès te PS du et eh, wax naa ko Ousmane Tanor Dieng ci Fala nee naa ko yóbbu na raay quatrième division PS yóbbu na ko quatrième rang au niveau des partis à Thiès mani Tanor ci saalam te yow yaa ñu waxoon fii nañu waxuma leen ngeen gañe Idrissa Seck à Thiès parce que feefam la waaye ak li ngeen tekki Thiès ak li ngeen occupé ci Thiès war ngeen mën au moins bu Idrissa Seck jiitoo parti bu ciy topp yéen lay doon sa c'est pas trop demandé au te loolu tanoor a ko wax te fàttali naa ko keroog bi ñuy waxtaan këram man ak moom donc il faudrait que ñu xam ni moom ba muy dem intérêt boppam la jiital bu jiitaloon intérêt PS na Moustapha mbay bu Saint-Louis def na mu def Saint-Louis noonu lay def Moustapha mbay ba ñu ñëwee joxe ñaari cër pour département APR jël benn ñu war a jox ci euh, PS benn bi AFP ak yeneen parti yi ne non non PS cëru woon na ba pare ndax moo yore conseil départemental bi dafa ne leen ñett représentativité la ñu wax mooy critère bu njëkk bi critère bi nga xam ni moom la Ousseynou avancé fii les camarades critère boobu dafa ne woy li mu teg ci loxo camarades yi bi ñu ko yëgee dafa ne waa parce que ñoom AFP ñoo ëppale ay conseil au niveau du département ak maire et ce qui est archivo AFP mosula dem élection locale bennoo la demee woon élection locale conseil ya fa ne conseiller bennoo lañ maintenant ku bennoo ña fa ne ku ci ne am na parti boo jógee premier critère bi représentativité la deuxième critère bi maintenant bu ñu séddoo ba xam ni maanaam AFP moo gën a représentatif ak APR ñu ne ku ne na jël benn ci la ñuy xool maintenant comme parité la ñu ne kii njëkk a tànn parce que comme parité la bu kii tànnee góor kii jigéen lay tànn ci la ñuy dem maintenant ci kii conseil issu des partis ki nga xam ni moo ëppale conseil mooy njëkk tànn bu tànnee góor ka ca def tànn jigéen parce que mën na tànn góor te fekk ñee préparé woon góor bu boobaa dañuy changé def jigéen critère boobu foofu lay intervenir. mais en démocratie en politique la représentativité mooy le premier critère dara mënu ko dindi mais li am mooy comme moom nekkul conseil élu départemental nekkul élu municipal moom Ousseynou Keïta te xam na ni xëñ na bu bàyyi woon benn cër boobu PS jël ko mën naa tàbbi biir commune bi te dana ma ngay daw ci poste ci poste yooyu benn dana amoo parce que Thiès au conseil bi ñaari poste mënta dugg Thiès donc mu sacrifier tous les conseillers de la commune et département te kenn rafetlu ko ñëpp ku ci ne àdduna ba ñëpp dégg ni kenn rafetluwul taxawaayam boobu pour rek moom konte ci ay lobby ak euh, ay servitude euh, par rapport ak ñooñu nga xam ne ñoom lay servir muy les responsables de l'APR pour ñoom ci lobby ñu def lobby fexe ba poste bi jóge ci nomination yi 70 yi Macky di nomi mu tàbbi ci moom mais loolu c'est peine perdue parce que nag parti bi d'abord bu ñuy jox tanoon la ñuy jox mooy séddale te xam na ku ci mooy kan te mënula xañ tous les camarades du département et de la commune pour ci coobare boppam ndax manque de générosité trahir tout le parti ba pare di xalaat ni post bu waroon dugg Thiès dafa war a tàbbi ci ay loxoom mais kooku man bu ma de bu ma doon moom ma gor sax warul nangu loolu. moom wax na ni ay nit ñu mu wax ñoo ñu wax ñu ne way Tanor félicité na ko nee na ko c'est cohérent tu as te maala ni ci tali lay waxee toog naa Ousmane Tanor Dieng toog ci salam on a évoqué cette question c'est archi faux Tanor ne cautionnera jamais ça musul cautionner la mu wax mooy fu camarade ne na défendre les intérêts supérieurs du parti parce que moom ci loolu la nekk ba fii ñuy waxee donc mënul santaane loolu ba pare di cautionner la cette haute trahison amul dara dama ni maa ngi féliciter suma xarit suma mag Yaya Ly bi nga xamante ni moom la AFP investir li may wax du contre moom du contre l'AFP j'ai le plus grand respect pour ces messieurs pour eux li may wax aussi du contre l'APR du contre sama c'est contre mes ñoo war a am taxawaay bu ñu am te amuñu ko ndax seen bopp rek lu ñu gis gis ñu parti bi gis ñu intérêt parti bi mais ça c'est tout sauf socialisme le socialisme c'est la solidarité c'est des valeurs malheureusement xam amuñu ko et j'ai dit à Tanor chez lui yóbbu na raay quatrième division ñun yóbbu nañu quatrième position au niveau des partis à Thiès alors que ni parti bu fa ne ñoo waroon nekk deuxième eu égard au passé du PS c'est pas trop demandé